sant yàlla ci laaj bi nga xam ne laaj nga ko ci sama jaar-jaar ak fan laa bokk fu ma soqe ko man sama waajur mu ngi tudd Serigne Ndiaga Diop dëkk dëkk bi ñuy wax Ndofane Legeem yàlla boole ñu ci askan woo xam ne askan wu xam-xam la nga xam ne baayam moo ngi tudd Babacar Diop maamam tudd Makhtar Diop nekkoon ay boromi xam-xam yoo xam ne jamono am teew na ñu tafsir ba Jaxu sama maam Maxtar Jóob jamono antoon nag tafsir Maba Jaxu ak ki nga xam ne mooy Seydi Mouhamed di bàyyi Alaaji Abdoulaye Niass ak ki nga xam ne mooy Mamor Anta Sali di bàyyi Serigne Touba ñooñu ñëpp sama maam Maxtar Jóob jamono wante nag ñoom waaye moom moo leen féete woon mag lool yàlla mayoon ko ci xam-xam ci dimension bu kawe boo xam ne daawuñu woon def lenn te daawuñ ci woon diisoo ak moom ma Maba Jaxu mi nga xam ne nag moom moo indi woon eh, doon xeex ak ceddo gi ceddo googu jaar bi nga xam ne moom la mujjee taxaw bu ngénte ñu wax ko na nataal jaar jotu gént na ko ñaari yoon waaye waxtaan na si ak sama maam boobu jox ko ci ndigal waaye taxaw ko dimbali ko ci taarix nag léegi dafa dem demin boo xam ne kenn ku nekk léegi ci sa maam rek ngay wax doo nangu mukk li xew lépp nga wax ko waxaale ci maam yoo ko fekkee woon waaye ñu suñ maam yàlla dawaloon na mu nekk koo xam ne boo gisee woon boo gisoon sëñ Tuubaa daan jugee njaareem daan ñëw Ndofane di seet sama maam bi jur sama yaay nga xam ne mooy Malick Diop ba yàlla dogal fa si sëriñ Tuubaa bu weex bu ngelaw bañ daan war wam daan war ñu suul ko Ndofane pour dëggale ko sama bàyyi suñ tubaa da daal ñëw ci sama maam nekkoon xaritam ñu bokkoon nekk ay wëllëre sama ba sama maam boobu nekkoon borom xam-xam boo xam ne dafa yàlla ko mayoon xam-xam bu jéggi dayoo xam-xam boobu nag ñun moom lañ donn moom lañ am moom moom moom euh, suñ bàyyi jooju suñ maam euh, moom bi ñuy wax Matar bi ñuy wax euh, Malick Diop Malick Diop moomu mu nekkoon xaritu sëñ Touba. Serigne Touba daan ñëw suñu kër ndax sama daraan gis maam baayam da daan ñëw ci sama maam moom it xam nga mag ñi bu amaan kóllëre dañ daan boole seen ay doom loolu moo waraloon Serigne Touba radiyallahu doom jugee Tunjaareem di wàcc Ndofane su jugee waan e, e, e, Poroxaan day wàcc Ndofane soo ko jàll Njaareem su jugee Njaareem wàcc Ndofane soo ko jàll Poroxaan waa sama maam bi nga xam ne moo jur sama yaay ci wàllu jigéen sama maam bu jigéen. kooku fas woowu moom moo ko mujjee may ndox mu naan ñu ngi ko denc Ndofane la gem noonu lañ mel ak euh, mboolem këri diine yi fi nekk yëpp dama ma bàyyi nekk mu xattamu suñ Babacar waaye nekkoon xarit suñu Abdou ba kaamilu alquran bi nga xam ne euh, roi Assane II joxoon na ko sëñ Abdou ne ko maa ko takkee kóllëre kon kaamilu alquran boobu sëñ Abdou sama bàyyi la ko jox takkee ko kóllëre ndax Maodo mi nga xam ne mooy taawu sëñ Abdou su déggee lii dana xam ne li may wax du wax Maodo moomu sëñ Abdou yónni na ko turu yàlla woo xam ne da ko doon wër ci ci àddina bi yëpp moom moo ko nettali ci làmmiñam maa ngi teew ci ndoofaan bi sama wax yëpp bàyyi làqoo mu ñëw taxaw di ko sëñ Abdou yónni ko da ko dama jaaleel ma sëñ Njaga Jóob ndax booba magee na te mënut a ñëw mu ñëw fa wax lii ne sëñ Njaga de seen bàyyi fi doon àddina ak itteel boo diggee ndoofaan la nga étage bi gën a guddi ci moo koy moom waaye yàlla dafa def mu nekk waliyu yàlla bu làqu boo xam ne bëggutoon feeñ mhm. ndax sama bàyyi sëñ Abdou tur bu ma mës a yónni wala secret bu ma mës a yónni su ma wëree su ma magee tijaan yi su ma du ma ko am waaye su ma ñëwee sëñ Njaga naa fekk maam lu ko waral sama maam bi nga xam ne moo jur sama sama yaay moom suñu bagage yi maam yi moom moo ko mujjoon gannaaw gën la ko dénk sama waajur suñu góor sama waajuru góor eh, ak sama waajuru sama waajuru jigéen seen bàyyi dañoo bokk ay dañoo bokk ndax man sama yaay sama baaj sama sama bàjjan sama doomu bàjjan la sama doomu yaa ngi dégg donc ñun ay man ak moom ay mbokk waaye sama yaay ndax sama baay sama baayam ak sama papa seen baay ñoo se se ñaar seen baay ñoo bokk ndey ak baay donc yàlla dogal ñun ñu bokk ci famille boobu man genn wàllu xam-xam bi may fajee yëpp man samay bagage bopp la man xam-xam bi may fajee. man dama ko judduwaale man dañ may wax dañ may wan man bokkuma ak fajkat yi dimension yi ñuy fajee man ñaa ñoom bokkuñu ay dimension yi ñuy fajee ñoom li ñuy fajee dañ koy jàng dañ koy jàng ci ay kayit lu leen ci ump ñu dem laaj koñ ko jàngal man dañ may gàgganti léegoo léegi may faj nit mu am mu am jafe-jafe yàlla may na ma tawféex mën naa jógee fi ma nekk ci guddi dindi gàllankooru nit ki ca këram te du ma jógee fi ma toog te guddi lay nekk te moom doo xam ne ñëw naa ci këram seytaane yi koy kar jinne yi koy kar wala dëmm yi koy kar wala gàllankoor yu mu mën ci am yàlla may na ma possibilité man ma mën a faj nit te duma génn sama kër mën naa faj nit fekk garab laa koy jox mën naa faj nit fekk dama koy ñaanal dimension yi ñoo tolloowul man sama wéy li may wax sama yaay moo ko xam li ma xam ñëw na nit toog wax na Cheikh Omar maa ko jox benn xam-xam man waaw bu ma dem ci yow rek bëgg nga xam-xam damaa bëgg lu may justifié wu rek lu may layee nga xam ne ëllëg dinañuy wax ne diwkat jaar na ci loxoom mm-hmm. diwkat jaar na ci loxoom mu nekk kuñ xam bu ko defee ñu nangul la sa xam-xam ndax maa ngi fàttaliku Cheikh Mahi Cissé bi may ñëwee ci moom ne ko damaa dem ci xablu Baye wax bàyyi ne ko dama bëgg nga ijaasa ma it laax bugguma ko ci intermédiaire dama ko bugg sa loxo ak sama loxo sa guddi ga Baye ñëw jox ma ko ijaasa it laax ma ne Cheikh Mahi Cissé dugg ak moom ci biir néeg bi nettali ko ko ma xam ne ma am nga ndigal ci ijaasa it waaye ñëwal fii ba ma miin la ma bindi ma bindi ijaasa bi yaxal ko jox la ko ndax ëllëg bu ñu la laajee nga mën a wane preuve kayit. mooy layoo gi ngay wax. mooy lay gi waaye man samay mbir dimension bi ma yàlla defal ci tawfiix alhamdulilah mhm. weesu na dimension wu nit ñi ndax nit ñi seen ay gis-gis dafa gàtt. àddina bi ñu nekk ak àddina bi dëgg-dëgg bi xamuñ ko bokkuñu ay dimension loolu moo tax alhamdulilah. jaar naa sama wéyjuru góor mu jàngal ma xamal ma faj bii ci moom laa ko jëlee waaye bokkut ak li nga xam ne sama mbiri bopp la li bokk ñi bokk ci man nekk sama ay famille xam nañ loolu hmm, ma jaar ci loxol Cheikh Mohamad Nazir ci wàllu tasawuf nga xam ne góor yàlla yi bu ñuy nekk góor yàlla ba nga doon ne ay mbóot ci yàlla bi ba nga doon ne mbóot yàlla yi ci xadara yàlla bi xeewu ci seen borom ba nga xam lii yàlla ak lu dugut yàlla ñu xàmmee génne ci mbokkaale yàlla loolu jaar naa ci ni ñuy góor yàlla yi di jaaree am ci wasila mu jox ma ay ay ay jox ma ay askar jaarale ma fi ñuy awale nit ñi tarbiya ma ci loxoom mu Cheikh Mahamad Nazir ibnu Cheikh Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ba ma xam sama borom xam gu wér nga xam ne mucc naa ci bokkaale yàlla comme ni nga xamee ne loolu bàyyi wax. que mm-hmm. ne a tuuti ci aw toppam génn na mucc na ci bokkaale bi bokkaale yàlla. Cheikh Mamadou Nasir seedeel ma ne man aarif laa ci kanam taawa Moustapha ak ta bëkk néegam Babacar ca neema ca Gàmbi moo fa yóbbu woon Cheikh Mamadou Nasir kon jaar naa ci góoru jaarika jaay jaar waay góor ñi euh, damay wax ne xam-xam ci médecine traditionnelle duñ ko jàng ñuy jàng ay garab lañuy ñuy jàng mais médecine traditionnelle le mot pur et dur loolu ñu koy doon dañ koy ñëwaale walla yàlla boole leen ak ay mbindeefam yoo xam ne ñun ak ñoom bokkuñu ay ay xalam fa ñuy nekk ñoom ak ñun fi ñuy nekk ñu bokk ñooñu ñoo mën a nekk fajkati cosaan. maanaam mbindeef yi mel nan. yàlla bu dina la may ay rawxaan wala mu mel ne ay jinne mhm. yoo xam ne ñoo lay xamal li nga xam ne sa xam-xam jotewu ca ñooñu ñoo mën a nekk médecine ñoo mën a nekk médecine traditionnel moo tax médecine traditionnelle bi ak médecine moderne bi xaw a utee ay doxalin mhm. ñu bëri dañ leen bëgg a boole mais mënuñu ànd. mën nañu ànd ci ay maslaha waaye mënuñu ànd ci ay dimension mënuñu ànd ci ay résultat mun mënuñu ànd ci ay preuve mënuñu ànd ci ci ay ay euh, jumtuwaay parce que loolu moo tax résultat bi may am soo ko bëggee méngale ak médecine moderne bi dafay tolloog professeurs yi wala mu dépassé sax dépassé na inventeurs yi lay tollool wala mu tolloog euh, euh, scientifique yi parce que fi ma mën a jëlee xam-xam scientifique yi lott nañ ci dem fa kii professeurs yi lott nañ ci dem bokku ñu ay dimension moo tax machine traditionnelle euh, valeur bi mu am machine moderne attanu ko puissance bi mu am machine moderne attanu ko moo tax ñu leen di ignorer parce que xam nañ ne bu ñu leen joxee bu ñu leen joxee bu leen joxee considération rek ñoom dootuñ feeñati la preuve et la mu ni nii corona bi mu ñëwee ci àddina bi yëpp scientifique yaa ngi fi jumtukaay yaa ngi fi xam-xam baa ngi fi lépp mu ngi fi. xaalis baa ngi fi xaalis baa ngi fi mais machine traditionnelle moom moo mujj génnee solution bi loolu benn preuve bu ndaw la rek. tourné nañ nag la doo tourné woon nañ ko waaye léegi wëlbatikuwaat nañ jàkkaarloo médecine traditionnelle di ko sóoraale di ko bàyyi xel les temps que ñu bàyyi xel ne médecine traditionnelle ki donc man sama CV man sama baay man moo ma jàngal moo ma yar moo ma jàngal ci wàllu àddina ci wàllu alxuraan ci wàllu lépp loo xam ne yàlla dogal na ko ci xam-xam ñu koy xam bu dee ci wàllu wàllum tasawu Cheikh Mouhamad Nazir doomu Cheikh Ibrahim Niass muy Baye Niass moo ma tarbiya ci loxoom boolewu mag benn mbindeef yàlla du amoon sama jot lool seedeel ma ne ma xaarif billaa nga xam nga sa borom xam gu wér te Baye Niass ba muy wax ne moom xaarif la dafa waxoon ne baayam moo ko ko seedeel ba muy lim di lim di lim di lim di lim ba ci Cheikh na Ahmada Tidiane yi kon xam-xam buñ koy am ay borom xam-xam ñoo la koy seedeel la koy seedeel donc man faj bii ma nekk nii samay moroom yi fajkat yépp ñu dikk ci sa réew mi xam nañ ne man fajkat laa te xam nañ ne faj bii ñu ma ci xam ci réew mi xam sama ndaw xam sama màgg xam nañ ne du lu ma programmé tappale ko teg ko ci sama kanam di ko naxee nit ñi xam nañ ko ndax ñu xam sama ngone xam nañ ko ba may am juróom-ñaari at sama baay yóbbu ma école française may jàngi ba ma dugalee école may jàngi ba mu yàgg dama ne ko papa man fii lii du suma cër ci ati juróom-ñaar damay amee juróom-ñaari at ma na ko lii du suma wàll man sama wàll ak cëriñ la génne ma fii sama baay génne ma fa loolu wax naa ko ci ay émission yu bari damay am juróom-ñaari at. sama ñëw sama yaay ne am na lu ma ci nettali sama waajur wu góor su may nopp. lu ma ci nettali lu bari man samay mbir daf ma fiy jiitu di ma fi xaar di ma ñëw fekk kofi man bokk naa ci ñi ñëpp xam ci góor ñu mag ñi góor yàlla yu mag ñi góor yi nga xam ne ñoo li wax góor yàlla. képp koo xam ne xeewoo nga benn wilaya ci kaw àddina xam nga ma man Cheikh Omar Diop moo moo xam ku kuy dund nga moo xam ku fàddu nga donc bokkuma ak nit ñi fajkat yii ay dimension bokkuñu sax fiñ ne donc man yàlla may na ma cër boobu ci ci ci ci ak xam kon faj bii dama koo xam donc yàlla may ma ci tawféex mu am ci expérience lu mu ndaw ndaw def naa fi ñaar fukki at ak lu topp ndax jaar naa Dalifort 2015 95 ba 2003 ma jugee fa ñu ngi Dalifort dem fa dem fale euh, euh, gannaaw raay léegi naa ko wax nekk fa ba 2003 ba 2015 ba 2011 ma jugee fa jugee Dalifort ñëw cité Cité Fadia 2011 ba 2019 ma jugee fa maa ngi fii cité Alioune Sow ci wetu jumaa ji donc man sama palmarès dafa nekk palmarès bu riche boo xam ne. Mhm. dafa ànd ak baatin. ndax boo xoolee deux mille quinze quatre vingt quinze ak deux mille trois huit ans la mhm. soo xoolee euh, boo xoolee deux mille deux mille ba deux mille onze huit ans la mhm. soo xoolee deux mille onze ba deux mille dix neuf huit ans la donc yooyu ñetti huit yooyu am na lu muy tegtale. damay bañ gaa yi dugg ci mbiri baatin yooyu euh, waaye huit chiffre bi chiffre huit am na fu mu jëm ak ñetti huit yi tamit am na fu mu jëm tey maa ngi di donc yàlla bu bëggee jaamam bëgg koo denk mbóot dafa koy toppal boppam moo koy organiser ay programme am moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax ci wàllu CV bi ma laaj ci sama bu doon lu ñuy bind la mhm. dañ koy bind mu nekk lu mën a lu ñu mën a présenté ñu ne diw jaar na fa diw jaar na fa diw jaar fa diw jaar na fa waaye am na yeneen yoo xam ne dama ko tëb ndax émission bi moom pour ñu mën a xaj ci émission bi. Hmm. donc wàllu médecine moderne médecine traditionnelle bi. Hmm. dimension bi mu am actuellement euh, liggéey ñi ci nekk di ko pratiquer te sellal ko rek ñoo ko fi indi. Hmm. te loolu ci système boo dem am na ñoo xam ne dañuy saboter am ñoo xam ne dañuy pratiquer normal am na ñuy pratiquer normal nag man ñooñu ñoo ñoo tax may wax am nañ ay exemplaires yu bari yoo xam ne tey ci ci réew mi fii. liggéey na ci machine traditionnelle loo xam ne tey boo bëggee xam lu baax ak dimension machine traditionnelle fu mu toll soo leen consulté wala nga toog ak ñoom di nga xam ne li ñu may li yàlla may ci ay dimension xam ci yeneen ay planète ak ci yeneen ay espèces yoo xam ne ay ay mbindeef la ñuy exister ñu mën a am euh, ñu mën a am possibilité mën a ko connecté ak ñoom di gis loo xam ne nit mënu koo gis di gis loo xam ne appareil mënu koo wane donc loolu. bu yàlla mayee nit ki ci dimension façon xam-xam boobu kooku pour mën koo def fokat wala bu ko cla classé ak yeneen nit yi loolu dafay nekk loo xam ne ignorance lay lay lay xaw a nuru koo xam ne bu ngeen toogee yéen ñaar yow mi jàng ma si machine moderne yow moom buy wax doo wax te loo wax mën na koo tekki wala xam na ko man mën naa nit malade day ñëw ci man malade yi dañuy ñëw ci man bu ñëwee ci man dama leen di laaj suñ ma waxee man damay xam mën naa leen a defal consultation saa ma jël benn appareil teg ko seen kaw te lu ma la wax ne moo la dal boo demee ci médecine moderne bu ñu la defalee consultation loolu mooy nekk sa feebar donc kooku mënoo ko tëkkale ak ki nga xam ne bu balaa moo xam lu la dal rek foo mu jël appareil. foo mu samp lay appareil. foo mu samp lay appareil donc bokkuñu ay niveau. Mm-hmm. bàyyi xeebuma leen nag parce que àddina noonu la ko yàlla mm-hmm. parce que science dafa nekk mbir moo xam ne ay nit ñu xereñ ay nit ñu góorgóorlu gëstu ñoo tax ñu am dimanche niveau bi ñu toll waaye ñun yàlla moo ñu tànn rek. may ñu lim ñu may ta waana fàddala bi yeti laay yuti man yàlla mooy jox daan du lu ko soob mm. donc jox nañu loolu ci xam-xam xam nañ ko mm.